commune Ndiédiène góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen tatagal di leen baalu ak ci guddee gi suñu coobare su loolu wéyee maa ngi nuyu kilifa yi xam ne teew nañ ci jotaay bi teewaay bu rafet ngir suñu leader le président Khalifa Ababacar Sall le président Khalifa Ababa est accompagné dans sa délégation par le maire Barthélémy Diaz, Il est accompagné également par le coordonnateur régional de la région de Kaolack, l'honorable Jokel Kadaka.

maa ngi jégalu sama goro yi nga xam ne ñoo ma may soxna heure bi dafa leen fee waroon fekk ñu téye kurus ma déplacé leen ñu ngi nii Baye Mbégane Ndour maa ngi lay jégalu bu baax. jigéenu Mbudaay aw ma seen fay jigéenu Mbudaay sans distinction aucune aw seen fay fii wan ne fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee. soo gisee Khalifa Sall taxawal nit ko xam ne nañ ko ràññee li ko caractériser aji balaaram mooy njub gore dignité parce que Sénégal un patriote digne de son nom mu nii élection yo au ne 2024, 2024. Et nous au soir du 25 février 2024. mille proclamer Khalifa Sall président de la République. naka la doon président Sénégal da nga ñëw fii ci dëkk bi li may wax ni histoire la man ñi mën nañ ma ko seede xale laa waaye ñoom wax nañ ma dégg en 1962 moom a Abdou é o ki la jiire école bii nii école élémentaire en que gouverneur Diouf danga def na ko président wala 1978 a Wade ñëwoon fii yàlla def na ko président wala def ko président. Senghor su ma ñëw baal ñu may dëgg Senghor jaara taxaw. dëgg bi ci cosaan Mbégaan Ndour bii mooy cosaanam. Mbégaan Ndour moom yaa ngi dafay saamu cosaanam. Xalifa président ku am sens nga. সে আল্লাহ বন্ধে বন্ধ করে bii mooy Mboudaye Seereer bii mooy Mboudaye Seereer bii mooy Mboudaye Seereer nga xam ne dëkk bii dëkk cosaan la dëkk boo xam ne taarix daf koo bind ba mu duñu fàtte suñu mébét nag mooy ñun problème tout le problème gis nga suñ jafe-jafe boo defoon nag suñ dugub ji leen ak suñ gerte gi di ñibbi si parce que loolu bi nga xam ne moom lañ war a jàpp pour jëli dugub bi ak gerte bi te li ko defar ñaari camion bu béton rek defar na ko ñaari camion bu béton monsieur le maire Barthélémy Dias li ngay defaree Ndakaaru loolu laa bëgg nga defaral ñu sama yoon bi